waaw parce que borom daara ji c'est que fu ma toll la ko jaaxal moom même pas sax mais xam nga sama maam kii sama maam dama damay wax bëri si borom daara ji quoi suñu nga ñaanal yooyu quoi xam nga. ndaw hmm? boo amoon loolu di dénk lan la. ah mooy foog nga jaamu yàlla bi foog nga tamit tarixa tamit. gën a gën fonk daara yi tamit respecté heure daal jàmm yàlla bu baax. jàmm yàlla bu baax kon ñoo ko daal di euh, déggandoo papi dañuy euh, progressé rek. dama xool tamit euh, ci biir ndax am na yoo xam ne tamit ay activité la nga xam ne ñu ngi koy amal tey ndax loolu ngeen di dégg noonu mooy symposium bi nga xam ne moo delluwaat ci njàngalem Seydi Hadji Malick ba tey tey jii sax war naa am li nga xam ne moo di vernissage bi nga xam ne at mu jog tey daal di am daal di gën a fësal li nga xam ne mooy ñàngale Maodo Malick ñu koy fàttali ne ñoo ngi ci 122e édition ci gàmm bu Tivaouane kon ñu gën a xuus dem a xool li nga xam rek euh, mooy xew ci biir euh, dëkk bi ñu xool tamit suñu euh, sunu waajur yi nga xam ne ñooy sunuy papa yi ñoom tamit ñëw ci def ziara ñàkk yi tamit euh, ñu am ñi nga xam ne ñoo di ay euh, soxna soppe Serigne Babacar na nga def na maa ngi fi man Postcaro. waaw tey tàng na de. torop sax. waaye euh, ñaan yàlla rek mu nu ñu koy <laughs> boo wax ndaw ñi lan lay doon. ah ndaw ñi gën a jaamu yàlla rek fonk seen waajur yi loolu laa am ma papi ñoo ko déggandoo di gën a fonk suñuy waajur am ah, waaw waaw Kole Diagne. Kole Diagne fa ko. waaw maa ngi bàyyi Kébémer. yaa ngi ko Kébémer. waaw naaj bi tàng na waaye teewul waaw waaye maanaam lu mu tàng tàng di ñàkk duñ ko yëg ndax suñu Babacar Si moo ñu yëkkati moo ñu ñor ak ñoñam ñuy ñaan ci yàlla ci barku Muhammad ñu fekke ay déwéni déwén di santaat yàlla ndax duñ fekke woon nañ ñëwaat fekkewaat kon ñoo ngi sant yàlla di ñaan ci yàlla ci jëmmi rasulullah ku fi ñëw loo fi ñaan yal na ko yàlla nangu ci barke yonent bi ci barke guddi gi ci barke rasulullah euh, thème bi dafa delluwaat tamit ci ndaw ñi ñu gën na ñaax ci ndonoy mag ñi tey boo amoon looy ñaax lan lay doon. naa sant yàlla nangoo liggéey jaamu yàlla bàyyi fii fi jàmbur di sant yàlla nag di ko ñaax sama njaboot ak njabootu jàmbur bu mën a doon. jërëjëf soxna si fa am ñoo xam ne tamit émotion bi ci boppam moo leen di téye ndax it euh, seen xol mooy fees. waaw moom la bàyyi ko waaw Kébémer laa bàyyi ko waaw di ñaan ci sëñ Babacar si rek moo ñu tax a jóg képp ku fi dëkk te sëñ Babacar si rek tax laa jóg ak yàlla ak yeneen te bi waaw yàlla na nga delluwaat ci jàmm ak salaam te sëñ Babacar si ñu ñaan ci sëñ Babacar si rek yàlla na barke sëñ Babacar si wallu ci daraja Seydina Mohamed amin jërëjëf kon ñu bokk lépp ñu fàttali ne ki nga xam ni moo di njiitu réew moom itamit Macky sàll jaaroon na fi démb defum ziaram comme nañ koy daal di defee mag ñi euh, tatagal ko teral ko ba daal di koy ñaanal moom tam njiitu réew mi daal di euh, ànd ak bu am solo ànd ki nga xam ne moo di premier ministre euh, Amadou Ba ànd ceeg ki nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo président conseil euh, économique social environnemental waaye tamit ñu fàtte leen mbokk yi ci kàddu yi mu yëkkati ne mag dañ koy valoriser lu ñu am ci ay ndono dañ koy daal di waaye tamit euh, dafa mel ni ne Sénégal dañu am li nga xam ne mooy or boo ko soppeek përëm te yaakaar nañ tamit fexe ba lan di euh, fësal seen njàngale loolu am na ci solo kon euh, papi ànd ceeg ki nga xam ni mooy papi ngoom di caméraman euh, bu ñaawul bi naam tàng na tàng na waaye tamit teexu teew teewu tamit ñeeni découragé kon dañuy xuus jàdd fi nga xam ne mooy fa symposium war a am ñu jëm na jëktal tamit li nga xam ne moo fa war a xew ci kartanu yàlla papi boo ko defee dañuy daal di euh, avancé ñu fàttali leen ne euh, cent vingt e édition ci ya euh, Mawlid Nabi di téeméeru édition beeg ñaar fukk ak ñaar ñu koy daal di amal la ba tax na ñu bare bare bàyyeekoo fi koy daal di amal la ba na ñu bare bare bàyyeekoo Sénégal ak bitim réew gis ngeen ni waa Koskas ñoom itamit yàgg na ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax ak xool rang yi ñoom ñi ngi ci jàkk kol yeeg yéen ko dégg noonu sang bi yaa ngi sa liggéey baax a baax. waaw ñu ngi sa liggéey baax a baax wax dëgg yàlla moom. tey lan ngay lan ngay saytu yow nii. macha allah wax dëgg yàlla moom kontaan nañu baax wax dëgg yàlla moom te gàmm gi ñëwagul. wax dëgg yàlla moom niñ ko koy nii moom surtout jigéen ñi nga xëy laa wax am na ñoo xëy fajar lañ jóg dinaa ba léegi gis nga nii duñ son duñ taay ndax sëñ Babacar Si rek wallaay maa la jaral ne lu nekk wax dëgg yàlla moom macha liggéey mooy lay saytu kol yeeg li nga yor nii ay lan la ay kayit la pour lan la. Eh, buñ buñ demee ba jege si sumu seen dàll yi dugal ci. ñu bañ koo dugal ci. waaw bañ koo dugal ci biir kii bi di ñu siyaare suñu Mansoor wallaay ci xabru bi. mais teew tam tàngaay bi ñoom. wallaay tàngaay bi déplacé bi am na ñoo xëy sax dama ne solli seen dàll sax ndax ba da dafa tàng mais am na ñu bëri ñoo xëy duñ na ko sol dàll sax wallaay ndax loolu jaral na ko wax dëgg yàlla moom. tey bu amoon message booy lancé ndaw ñi tey wallaay xanaa góor góorgóorlu rek nekk benn tàppe xol nekk benn góor COSCAS ñu xàmmee leen ci euh, service euh, bi nga xam ne moo dégluwaat ci wàllum comité d'organisation tey. waaw lan ngay di gën a góorgóorlu lu baax rek nekk benn bañ a soxorante bañ kii koo gis laay waxoon ni def ko comme kon sa bopp nekk benn bu ñu ko defee rek lépp lépp gi parce que ñun ñëpp lan moo tax ñun ñëw ci naaju tàng bi defar même yéen ñi ñëw fii sax laay waxoon defar moo tax ngeen ñëw ci naaju tàng bi. wallaay loolu tax moom dina di ñaanal moom ñun ñëpp na moom yàlla yàlla biral ñu yiw rek baax a baax incha allah yàlla yàlla biral yiw soxna si ñax na lool mi ngi nii ak mbuus ndoxam waaye teewul mu découragé yaay booy foo bàyyee ko doon sant yàlla jolof yaa nga bàyyi ko ba waaw tàng na de waaye nag sant yàlla doon lee sant rek waaw di lee ko waaw waaw def nañ ko ci suñ xel ak suñ xol waaw doole sax. papi acca ñu daal di progresser gis ngeen ne xat na lool te sax suba la gàmmu gi mais teew teewul itam ñu bëree bëri ñoo ko bàyyi ko ci ay zone fasantikoo fi nga xam ne rek mooy ginnaaw ndakaaru ak li nga xam ne mooy fukki gox yeeg. Euh, bëree bëri ko ci ay zone fasantikoo fi nga xam ne rek mooy ginnaaw ndakaaru ak li nga xam ne mooy fukki gox yeeg euh, ñeent fi ci ndakaaru mooy les quatorze régions du Sénégal ak au niveau international lépp rek bëgg a ñëw participer ak ñun ci euh, gàmmu gi gis ngeen écran géant bële na le ñi ngi fay euh, teg euh, film bi nga xam ne moo delluwaat ci la vie et l'œuvre de Sëriñ Mouhamadou Mansour di borom daara ji borom sañse bi ñu gën ko ci xamee moom mi doon wax naan euh, loo ma laaj ci euh, téere ma wax la ko waaye la ca gannaaw téere da ngay dem ba ci maam Cheikh Ahmad Tidiane si mu daal la koy jàngal kon ñu bëree bëri bëgg ñëwaat daal di feddaliwaat seen ziara ci ki nga xam ne mooy sëñ Mouhamadul Mansour euh, borom daara ji yàlla yàlla yokk ay leerama kon ba tey feneen beneen équipe ñoom soxna Maria ak ñi nga xam ne mooy ñoom Oustaz ñoom ñëpp ñu ngi daal di amal ay plateau waaye tamit bu leen découragé ndax euh, la 7TV dina alxaar bu baax a baax gëm ni itam rek lépp lu nga xam ne daal xew na fii daal leen ko dëgtal idem tamit fa nga xam ni mooy champ de course foofee tam ñu fay xaar ki nga xam ne mooy sëñ Mouhamadou Moustapha Sy al kon papi dañuy gën a xuus rek jéem a xoolaat li nga xam ne moo xew ci biir euh, dëkk bi naam tàng na waaye il faut faire avec nañu dem ñoo ngi fi nga xam ne rek euh, moo di euh, ci jumaay Serigne Babacar ñu gën koo jege xat na lool naam xat na lool ñu jéem a xool rek fi nga xam ne mën nañ fa taataan yi ne ci ay euh, kàddu gis ngeen ne fees na lel lool lool lool sax lool sax ngir rek nga accès euh, daanaka jafe-jafe la jafe-jafe gu mag la soxna si moom mi ngi taxaw di xaar yaay booy yaa ngi xaar daal da def yaa ngi xaar yéen ngi xaar yéen ah? ba noppi. ziare ba pare. ziare ah, nañ ba pare. ah nga ñaan. Ah, ñaanal nañ ko de ñaanal suñu bopp bépp xaajoog soxla bu fi andi ñaanal ñëpp suñu njaboot geeg njabooti jàmbur yëpp yàlla may ñu jàmm ak salaam may ñu nawet boo ànd ak barke. ak muut te ñu muudoo ko. fan nga bàyyi ko. na mandaa miri na mandaa mais tàng na waaye tam teew tamit ñëw nga. waaw waaw jaral na ma ko. message booy wax ndaw ñeek yooyu lan lay ah. tey booy def lan lay ah mbaa ji dénk ndaw ñi rek ñu ñu yokk seen seen taxawaay rek yokk seen taxawaay ci tarixa aji ak diina ji waaw. ñu seen taxawaay rek yokk seen taxawaay ci tarixa ji ak diina ji waaw ñu seen kilifa yi mel ba dem daal nañ taraay mel ko rek. amin yàlla na taas ci seen euh, barke yaay yow it ziar nga ba noppi. ziar ziar naa ba noppi. Euh, fan nga bàyyi ko. man Medina laa bàyyi ko. yaa nga bàyyi ko Medina. Mandax. Casamance. fan Casamance. waaw waaw Casamance sànq ñu ngi koy wax ñu bëree bëri ña nga bàyyi ko ci gox yi fasantikoo yi ñu ñu taxawal ña nga bàyyi ko ba Casamance. tey jii euh, lan nga waaw siyaare nañ ba pare de ñaanal ni ñëpp ñaanal nañ leen yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla def leen mag def leen magam barke. te li ngeen ay liggéey yal ci yàlla def barke ñu ñam ñi bokk ko yàlla xetti leen yàlla sàmm leen. yàlla musal leen ci saytaan yi te niñ teewee nii yàlla nañ ko teewee li gën déwén déwén gënal yàlla lépp liñ ci ñaan yàlla ko suñu borom nangu ci baaxal yàlla waa kon euh, papi mi ngi noonu ñoo ngi fi nga xam ne moo ci euh, xabru euh, xam ne moo ci xabru sëñ Mouhamadul Mansour ñu bëree bëri ñëw def seen ziara xaw na xat lool moo tax dox bi xaw a yéex waaye tamit daañu euh, def euh, suñu kéemtalaay kàttan ngir mën leen euh, yeggal fa nga xam ne mooy ca raw du sëriñ Babacar waaye tamit daa di dem fa nga xam ne moo di raw du sëñ Abdou Aziz si Al Amin ak képp nga xam ne daal nekk rek nekk nekk toogoon nga fi nga xam ne moo di xilaafa gi dañuy def rek gën a xuus papi ñu gën a avancé ñu gën a dem ñu gën a dem waa Koskas seen liggéey rafet na yéen ngi def macha allah Koskas naka ngeen taxawee ci gàmm nga xam xanaa sant yàlla rek am taxawaay boo xamante ni bëgg rek pèlerin yëpp ku ñëw yàlla def nga ñëw si jàmm dem si jàmm taxawaay boobu lañ taxaw fu mu toll nii waaw képp ku ñëw si gàmm gi ñëw si jàmm dem si jàmm comme ni ko borom bés bu woon woon maam Sidi Hadji ma waa dafa mel ni at mu jot limu ñi nga xam ne ñooy liggéey si Coskas. at mu jot limu ñi nga xam ne ñooy liggéey si Coskas day yokku de lu waaw loo gis rek euh, mbiru Sidi Hadji ma wala mbiru yàlla moo mel noonu. amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am moo tax saa yu ne membre COSTAS dañuy yokk dèjà tey ñu ngi ci 7000 euh, et quelques personnes yoo xamante ne nii euh, ñëw nañ si gàmmu gi ren te xam naa ne sax dina yokk par rapport ak membre yu bees yëpp waaw. gàmmu gi suba ci guddi la incha allah waaye teewul tam jamono ji fii xat na xataay boo xam ne jéggi na day waaw xat na ndax comme ni ma la ko waxee rek euh, bésu yonent bi il fallait que mu mel noonu il fallait que mu xat. rawatina ki nga xam ne moo ko wootee mu am suñu xel suñu maam Seydi Hadji Malick ak njabootam yëpp bu ñu wootee bés bu mel ni faw mu xat waaye nag ni ñu war a mën a def ba xataay boobu du andi benn jafe-jafe loolu moom mooy taxawaay waa Coskas bi comme niñ ko waxee rek euh, kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk rawatina ndaw ñi yóbbaale na sax mag ñi ndax war nañu mën a fexe ba kenn ku nekk raxasaat sa jikko raxasaat sa jikko ci lan ci kàddu raxasaat sa jikko ci jëf jëf ju rafet raxasaat sa jikko ci làmmiñ nga jël sa làmmiñ di ko teg sa moroomu der te li ngay wax dara wóoru la ci ndaw ñi it fexe xool li nga xamante ne moom mooy avancé Sénégal ak liy doxal dëkk bi ñu nekk ci lépp lu ñu gis ne da koy yàq wala da koy tardeel wala da koy delloo ginnaaw ñu am si taxawaay boo xamante ne ndax tey relève bi ñoom ñoo ko yor kon ndaw ñi ñu ngi leen di dénk ñu xamaat suñu bopp xam li nga xam ne mooy thème bi ñu joxe tey ñu mën see gis suñu bopp ñaanal tamit ki nga xam ne mooy xalifa bi yàlla sàmm ko yàggal ko fi ci kanamu njaboot waaw waaw sëñ Babacar moom defe naa ay waxam bu ñu koy wax tey jii daanaka fii la ñuy fii la ñu di fekk waa sëñ Babacar yaa moom daal li ñuy ñaan yàlla mooy tas ñu si barkeem lépp loo xamante ne yàlla mayoon na ko ci ay mayam yàlla wisaare ko ci ñun rawatina ci Sénégal rawatina àdduna bi yëpp waa 7TV nag ñu leen di gërëm bu baax seen taxawaay ci gàmmu gi vraiment kontaan nañ ci ñoom jërëjëf ñu xuus ak euh, papi ba tey comme ni ko waxe rek Euh, macha allah waa COSCAS ñoom mi nga xam ne mooy euh, comité d'organisation au service euh, du xalif Babacar Sy kon dañuy daal di mën a xool ndax daañu du ñu tëb ci barrière yi de dafa mel ni dañuy xuus rek dem jéem a dugg xool fa nga xam ni mooy ci rawdu bi jéem a xool tamit ñi nga xam ne amal na seen ziara Pape ñu jéem a xool. waaw xam nga tamit euh, sëñ Babacar dañuy wax ne lu bëree bëri euh, soxna yi ñoom euh, dañ ko safoo lool lool lool lool lool ba tax na gis ngeen mbooloo mu takku moo fi nekk fi nga xam ne moo di raw rawdu sëriñ Babacar si naam tàng na ndax gis ngeen ñu ngi ñàkk xep maak papi ngom papi ñu jéem a jaar nii ba xam ndax daañu ñu jéggem de ñu jéem a xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ziyaara ba noppi wala di waajal amal seen ziyaara waaw ñoo ngi fi nga xam ne euh, mooy raw rawdu euh, sëriñ Babacar Sy gis ngeen ko nii am joo xam ne def nañ seen ziara ba noppi. am ñoo xam ne def nañ seen ziara ba noppi ku ci mel ni yaay booy bii. waaw yaay booy fa bàyyi si barke si euh, xabrub sëriñ Babacar Sy. fan maa ngi jógee Tiwaawan gu ndaw poste Caaroy. gis ngeen. waaw lan xol bu sedd rek ak sant yàlla bu baax di sant Serigne Babacar Sy di sant Alaaji Malick di sant maam Maodo lii ñu ko teewee ren yàlla nañ ko teewee ay déwéni déwéni déwén te yàlla defal ñu wér ak xéewal. tàng na waaye loolu tàng na waa lum tàng tàng tàng ñun duñ yëg tàngoor wi ndax góor gi ñu fi indi moom rek lan yaakaar te jaral nañu lu ne bu doon ay xal te jaral nañu lu ne doon ay xal sax ñu dugg si di dëgg di dem ay xal ñu dëgg si di dem ndax jaaral nañu. tey jii ndaw ñi nga xam ne tamit euh, macha allah ñëw nañu euh, tey ban dénkaan ndaw yi ci seen ndey yi jaar ak seen bay yi rek la ñuy jaar ndax xale buy doog di juddu sax boo ko waxee mu ne la barke Serigne Babacar Si te yëguñu ko si saawaale ba rek dara maan aram loo kumba caam nga xam ne ñu ni ko mag ñi yaakaaree rek moom la ko xale yi xale yi dematuñ baal dematuñ koro dara ñëpp ñu ngi ci daara yi ñi ngi ci tay siiri ñi ngi ci daara yi bon nag yal na ko yàlla saxal ak barke Serigne Babacar Sy yéen ñiy taxaw si naaj wi yal na ngeen dund téeméeri at ak juróom fukk sans ordonnance kontaan nañ si yéen yal na yàlla kontaan nu ngeen ci liggéey rek yal na leen yàlla fay ak barke Serigne Babacar Sy min yaakaar ba tax ñu ñëw. waaw jërëjëf. sama njaboot samay sët rek laa ànd ak waaw sama sët yi rek laa ànd ak ñoom ñii ñoom ñëpp ay daayira lan bokk ajjuma bu ne ñu ngi xadara xadara du leen raw te loolu lépp si saawaanee ko wana moo ñu nàndal si alxuraan moo ñu nàndal si diine bon diine rek la ñuy xam si. waaw macha allah moo ko jërëjëf yow tamit yaay booy jërëjëf jërëjëf yaay jërëjëf. waaye yéen tamit gis ngeen li ma ko waxee sànq dafa mel ni sëñ Babacar euh, bu ko euh, ko ci jege rek dafa mel ni moo la ko gën a bëgg rawatina ñi nga xam ne ñoo di soxna yi foo bàyyi ko yaay booy. man maa ngi ko dëkk bu ñuy wax Connax. Connax nekk maa nga commentaire reba euh, kii commentaire Ranérou. waaw kii Ranérou la jógee sànq ñu ngi koy wax am ñu bàyyi ko ci gox yi sore sori naam tàng na sori na waaye dafa mel ni gàmm gu jaral na. jar na lu ko ëpp sëñ Babacar si jaral nañu dox si teen jaar si déeg jàll. ba agsi si moom siyaare ko su dee génn bëccëg tamit ñu siyaare ko jaral nañu ko ñu wàññee ko waat ñu ngi paas arale tour ñaari junni ak juróomi téeméer waaye bañ dëkkee wala suñ faree di euh, gàmm sëñ Babacar Sy jar ndax ba gàmm gi tere ba ñu ngi koy ñaan yal nañu yàlla yal nañ si man euh, déwén lu ko ëpp ay déwén déwén ñëpp ko fi teew yal na la yàlla def nga dellu si jàmm fekk si jàmm àgg si jàmm yaag sang njaboot yéen ñi taxaw di lif lii tamit yal na yàlla yokk seen garaat si barke sëñ Babacar Sy min yaakaar si barke Njool Màkka sallallahu alayhi wa sallam. radiyallahu taala anhu sëñ Babacar si. ah ah. man Tamba yaa bayitu. Tamba fan nga bàyyi ko Tamba. Tamba waaw soxna si Tamba la bàyyi ko rek ndax sopp sëñ Babacar si ndax gis ngeen ko photo. sëñ Babacar si radiyallahu taala waaw waaw. jaay ne. ma lu ne. yàlla ak ak lu bëri bëri ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah gis ngeen ñi fi ah, tase bari nañu ñoo xam ne ña nga bàyyeekoo Tamba ñi Ziguinchor Casamance France Italie États-Unis lépp rek ci barke ah, gàmmu gi ak daal di teew fi nga xam ne mooy fi ci Tiwaawan ngir mën a ñaan ñaan tam seen soxla ci ah, rawdu suñu maam sëñ Babacar Sy radiyallahu taala kii moom moom i tamit euh, di weccente li nga xam ne mooy nataalu sëñ Babacar. waaw mën nañ cee gis sa waaw sant yàlla uh-huh. pour ñëw siyaar yi sëñ baabakar de man de mu sama xol julli si xol mbëggeel si xol sant yàlla bu baax bu kenn fëgg dana bu kenn wanu nañ gëm yàlla joxete yàlla tax kii mën na juróom-ñetti at uh-huh. waaw weccee ko sax waaye mën nañu koy jand moom waaw sëñ Babacar di moom man saa yu ma jaaxle man sama xol nekk ci moom sama xaaju faju ak bu ma xañ fekkee nag man man moo Thiebo commune rurale Kaccot waaw comité rural bu Kaccot Kaccot moo nekk ci région bu Kaffrine. naam sori na comme na ma ko waxee rek. képp ko yaakaar ne am na fu mu bàyyeekoo am na ku gën a sori loo te pourtant na moom mi nga xam ne mooy weccente lii nga xam ne mooy nataalu sangu tedd bi tey boo amoon message booy lancé la lay euh, sant yàlla rek waaw moom sëñ Babacar moom saa jaaxle daal saa yu ma jaaxle man du ma suñ jaaxle sax. man sama xol saa yu ma jaaxle man sama xel daj sëñ Babacar di sama aju faj keroog dimanche benn juróom-benn fukk laa dese ne dinaa dem wan dem naa bàyyi naa sama bagage daala lay mooy sama liggéey waaye su ma ñëwee fii wane wu ma kos koskaata damay liggéey pour yàlla ak sëñ Babacar si ak tax taalibe sëñ Babacar si taalibe Tidiane wartu wonu fëgg a dën defaraat sëñ bi tax ak yàlla gis ngeen ni ñu ko waxee sànq rek ama ci ñoo xam ne ña nga bàyyeekoo fu ci nekk ñoom tamit daal di bëgg a mën a jël waaw moom kay naka lañu ko tàllal ñëpp bëgg a wax ku baax. Ah. waaw def nga sa ziara ba noppi. waaw ziar na sëriñ ñu ngi ziar si ñëpp ñu ngi bàyyeekoo ko ba Kolda. ba Kolda gis ngeen sànq ñu ngi jël kenn ku jógee Ziguinchor am ku jógee Tamba am ku jógee ba Kaffrine. waaw kii ma nga jógee Ziguinchor kon li ñu doon wax mu ngi nii nekk firnde. waaw kay waaw ñu ngi leen di ziar di képp ki nga xam ne ñëw na ci gàmm gi di masaw ak ñu ñëw ci gàmm gi yëpp yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaan bi ngeen ñëw wut si yàlla na ko yàlla motali lépp li nga xam lu ci waay eh, ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan gi yëpp ci barke sëñ Babacar si sonn nañ ci lool kii nañ ci lool mais nag lépp sëñ bi jar na ko borom guddi bi jar na ko mooy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, euh, chers téléspectateurs de la CTV, juste un rappel en français, bien en résumé, nous sommes ici au niveau de la ville sainte de Tuawon pour la célébration de la 122e édition, notamment du Mawlid Nabi, commémorant la naissance du prophète Alors, euh, l'édifice que niveau euh, du mausolée de Serigne Babakarsi, radiallahu ta'ala anhu. Mais d'emblée, nous étions aussi, euh, au niveau du Habrou de Serigne Mohamed Mansoursi. Nous avons eu à recueillir quelques témoignages. Alors, euh, justement, comme si euh, vous y étiez alors euh, loolu moo doon résumé ci français papi ba tey ñu euh, taxawalaat ki nga xam ne mooy su ku baax tudd. Jibi Mbaye Jibi Mbaye. foo waaw gis ngeen léegi lañ ko doon wax rek ne Tamba Ziguinchor kii Mauritanie la Mauritanie la bàyyi ko Mauritanie. man ñëw naa fi alar sori na de. waaw. waaye dafa mel ni borom gudd gi tàgg moo la ko jaral. sant yàlla rek wallaay wallaay sëñ bi moom jaral na lu ne. sant yàlla rek wallaay sant yàlla. alors bi ngeen doon ñëw ci euh, Mauritanie da ngeen am i jafe-jafe la. waaw waaw macha allah kay amoon benn problème wallaay macha allah. macha allah amoon euh, message booy dénk ndaw ñi lan lay doon. góorgóorlu rek te sant yàlla doon taalibe bi te ñaan yàlla defal nu taalibe bu baax. kon daal yéen ngi waaj ngir taataan li nga xam ne moo war a wàcc ci euh, guddi gi. wallaay noonu ngay taataan bu baax macha allah noonu ngay taataan. Jibi Mbaye Jibi Mbaye mu bokk mbokk yi ki mu nekkoon suñu mbokk Jibi Mbaye moom mi nga xam ne moo bàyyeekoo ca Mauritanie ñu jéem a seet sànq sax jëluñu ay soxna naam waaye tamit euh, ñu jéem a xool naka lañ mën a xuuse jéem a xool ak euh, nga xam ne def nañ seen ziar ba noppi ak nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci euh, gox ya gox goxaan yi de waa Koskas ñi ngi noonu ñoom di def seen liggéey bu ci ay sang bi kii ziar na ba noppi. ci sëñ Babacar. waaw waaw bu baax kenn bu baax parce que maa ngi nii maa ngi nii gaaya laa bàyyee gis nga gaaya mu nekk dëkk Seydi Hadji Malick. radiyallahu taala. ma ngoog euh, suñu mbokk waa gaay yi di ziar bu baax a baax. ñu ngi la koy delloo ñu ngi la koy delloo. ngeen ñu mën a wax acca ci gàmmu geeg wàccaa beeg yooyu. gi xanaa sant yàlla dolli ci liñ ko doon sant parce que tamit euh, nekk na foo xam ni ñun Tiwaawan la ñuy tiitaroo ñun surtout ñun waa gaay Tiwaawan la ñuy tiitaroo bu yàlla dogalee gàmmu jot yàlla jàppandalal nu bay nu am lu nu gàmmusee bu ñu ñëwee dañuy santaat yàlla ziar nag sëñ bi bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu def si Sénégal jàmm salaamaaleykum. mu ñaan Sénégal mu def jàmm papi dañuy gën a xuus rek jéem a seet feneen foo xam ne mën nañ faa mën a génne ngir jéem a xool yi tamit euh, ñor wàllu wér-gu-yaram bi maanaam waa santé ndax gis ngeen tàng na lool lool waaye laataa ñuy dem rek dafa am koo xam ne mi ngi nii sañse bi rafet lool borom ñetti abdu yi ak euh, mbaxana bu rafet bi ku baax asalaamaaleykum wa bi nan la. Cheikh Tidiane fan nga bàyyeekoo. maa ngi bàyyeekoo Ngaparou. mi waaw dafa tabaarakallaahu yu dëgg-dëgg yëg yëg-yëg gi mooy liggéey maam soo Xaj Maalik. yëg yëg ala azimu layla wilaadata xisbatan ida lam yakun xaraamin al gu wér nii maam Sër Xaj Maalik liggéeyal bi mu liggéey yàlla liggéey bi bëgg yonent sallallahu alayhi wasallam wan na ko wane na ko ku ñëw xam ne fii Tiwaawan ku fi ñëw war la xam nga li la fi indi mooy leer la fi sàkk leer lañ fi ku fi indi lekk ak naan yow nga toog ko leer na fi indi ku fi ñëw indi leer rek incha allah di ko yóbbu leer rek moo indi nit ñi kon tabaraka allahu ku fi ñëw ànd ak ma ak teg na ak dal incha allahu taala di ko am jërëjëf sang bi kon mbokk yi mi ngi noonu ñi ngi doon doxantu ci nga xam ne rek mooy mbeddi Tiwaawan yi ni ma ko waxee sànq jaar fi nga xam ne mooy raw du sëriñ Mansour si jaar ci sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu kon nag mi ngi noonu ñu bàyyeek euh, ñi nga xam ne mooy waa 7TV ñuy préparé seen journal ak équipe rédaction bi yëpp di leen dikk euh, daje ne daal euh, ginnaaw bu jeexee daañu del siwaat ànd ak yéen daal di fexe ngeen dundu gàmmu gi guddi gàmmu gi ak ëllëgu gàmmu di leen jaajëfal baax a baax ak équipe bi nga xam moom la ànd rawatina Papi Ngom Papi jaa ngeen jëf kon nag waa Dakar je vous rends l'antenne wax kon à tout à l'heure jaa ngeen شكوى ويا كريم السفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاق